tiis ak naqar la Sénégal gi fas yéene euh, fanaanu euh, ci altine tey gi jëm euh, talaata ci génnu àdduna kilifa yu tedd yi njëkkee ko ak xalifa général bu Thiénaba ak nga xamante ni moo di Serigne Abdou Rahim Seck mujjee naa dëddu àdduna ci guddi ga altine tey ji yemoo ko 9 août 2021 fële ca Maroc génn àddunaam gi nag moom mi nga xam ne bi mu toogee ci uh, yéen bi sax uh, yàggul noonu ndax benn at la ciy def ak ñaari weer jamono ji mu ko fekkoon ca diwaanu Maroc uh, mujjee na dëddu àdduna moom Serigne Abdourahim Seck di nekkoon njaboot ci Serigne Momar Talla Seck moom nga xamante ni daal njaboot la ci xalif général bu Amari Ndak Seck daal dëddu na àdduna ki tey ci guddi gi. xam naa xibaar yi rek dañ ko topp gën ko yaatal ni ki suba waaye daal ci tënk euh, ki nga xam te ni moo fi wutu woon euh, Serigne euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ci tuuru Serigne Abdourahim Seck di nekkoon xalif général ca Thiénaba dëddu na àdduna ci guddi altine tey jii yemoo ko 9 août 2021 fële ci diwaanu Maroc xanaa rek di ñaan yàlla yeesal. Euh, yërmandeem ci kawam yokk leeram naka noonu tam fële ca doadu euh, laayeen tam ñoom ñuy tàggee xalif général ba euh, moom tam dëdduna àdduna Baye Abdoulaye Thiaw Lahi moom daal ni ñuy xamal ne dëdduna àdduna ni ki sànq ci guddi altine gi ba ju jébbal ko borobam ci watu juróom ba Seydina Issa Ruuhu xam naa mbokk yi xibaar yi yëpp métti na lool ci umma islamique bi rawatina fii ci senegal Euh, génn ko àdduna xalif général des Layènes mi nga xam ci ni amoon na quatre-vingt-deux ci altine ak tey gii la génn àdduna ci guddik altine gii sax la juy waxtam euh, génn ko àdduna xalif général bu ba di dese yoo xamante ni nii tiis na lool euh, ci kaw Sénégal xanaa rek di ñaan yàlla daal di yeesal yërmandeem ci seen kaw yokk seen leer te may njaboot gi xolu muñ xibaar yi daal nañ ko topp ni géey suba ci talaata gi ci na mu gën a yaatoo di jaal senegal yëpp rawatina umma islamique bi yëpp génn àdduna xalif général bu Thiénaba ak bu Laayeen jën ngeen jëf